ànd ak président Mansour Kama président conseil d' administration ñëw fii di nemmeeku Serigne Touba fex euh, ànd ak ñoom si Magalu Touba biñ fi ñëwee woon yaa a mois de cela waxoon nañ Serigne bi que dañ ànd ak ñoom fexe ba ren ji euh, bañ difficulté distribution ndox mu wàññeeku. di ci ànd nag ak OFOR di ci ànd ak popul am ministère de l' hydraulique liggéey si production bi liggéey si qualité eau moo tax pompe de ñu fi installé. liggéey si recherche de fuite 80 fuites lañ fi réparé fii ci Touba puis liggéey si ay point de borne fontaine euh, événement bu mag la 5 millions de personne fi ñuy ñëw si magalu Touba il faut que ñëpp ànd si ñun SDE loolu mooy suñu contribution fexee ba euh, difficulté bañ am fii ci euh, ci magalu Touba bi. dañ daan intervenir ren ji suñu intervention suñu intervention dafa gën a am doole pourquoi parce que événement bu mag la dañuy liggéey si RSE. dañuy ànd ak OFOR ànd ak ministère de l'hydraulique fii ci Touba euh, ci événement bi ci Magalu Touba. Euh, xam nga Dakar mooy capitale Sénégal c'est vrai que amoon na difficulté mais tey jii lu lu ñu dépassé la ñun ak SONES ak ministère hydraulique euh, gis ngeen ci liggéeyu SDE fexe nañ bi léegi difficulté bañ a amati ci ren li ñu def forage yi SONES def si bayax ak ànd ci ak liggéeyu SDE moo tax difficulté yi li ça beaucoup diminué te dañ continuer